waaw man maa ngi tudd mbay Diouf di responsable APR commune Ngogom aussi yàlla def tey ñu parrainé ma finalu zone 4 de Bambey Sérère gannaaw loolu nag may remercier le président de la zone monsieur Daouda Ning di remercier aussi la maturité de la jeunesse et le fair play parce que une finale de cette envergure parce que final bu yaato bu amee ni dayo finale boo xam ne mobilisation bi c'est exceptionnel finale boo xam ne aussi ndaw ñi ñëpp ñëw jigéen ñi ñëpp a ñëw mag ñi ñëpp a ñëw ñu jóge ko ci jàmm ak salaam sans ñu gis benn agent de sécurité loolu day wane ne ndaw euh, commune Koogom ndaw village yu Bambey Séréer ndaw zone 4 Bambey Séréer am nañ maturité am nañ yar am nañ tegin loolu tamit ma leen ciy félicité di leen jaajëfal parce que loolu image bu rafet la seen ñu dëkk Bambey Séréer rawatina ñu leen di représenté euh, fee Dakar wala feneen au niveau des différentes stations Euh, de la politique en tant que responsable kon bu ñu wonee maturité boobu dañ ci am kontaan bu baax. am si yaakaar bu baax am yaakaar bu baax si ndombol tànk bu Amadou Ba faloo am yaakaar ne aussi euh, li nga xam ne mooy suñu yitte ci ndaw ñi mooy accompagner leen si tous les plans rawatina sport. terrain bi nga xam ne tey conditions yi mu nekkee ëpp na bu ñu sañoon tey ñu gazonné ko mu am tribune ak yooyu yëpp tey bu ñu yàlla mayoon ndombo tànk wala may ñu kattan buñ ko defee. yaakaar na ndaw ñi duñ ko jooy te loolu xam nañ ko parce que du tey lañ fi commencé ñun de mille 2015 à maintenant ñu ngi pare parrainé lu ñu taxaw ci wàllu besoin ñun ñoo koy def terrain bii nii bañ ko clôturer ak léegi ñun ñoo fi njëkk a def filet donc loolu day wane ne ñun ak ndaw ñi lañu am contrat te contrat bi ma am ak ñoom ni ma leen ko waxee léegi rek mooy dem uti indil leen ak lu ma mën a am nag sama dayo fi mu toll rek loolu la li ma indi toll kon maa ngi leen di tàllalaat loxo bu baax. am si yaakaar bu baax ndax Amadou Ba nit koo xam ne dafa gëm compétence yàlla def ñun tamit ñàkkuñu compétence ba tax na bu ñu amee relation yu particulière ak amadu Ba gis aussi sa personnalité ba jàpp ko ti ànd ak moom dañuy tàllal loxo ndaw ñu ñu votel ko bu buñ ko votelee ëllëg ñu am yaakaar bu baax ni nañ occupé station bu extraordinaire boo xam ne tey dina permettre ñu mën a accompagner toute la communauté waxuma la ndaw commune Ngogom wala rawatina ndaw Bambey Séréer